li ci yenn kaay yi li ci yenn yi El Hadji Ousseynou daleen jàmm ci xibaar yéenekaay yi bi duñu xamal ne am na lu toll ci ñaar fukki nit ñoo xam ne jot nag ci biir réew mi yéenekaay bi di enquête duñu xamal ne kay dënu gi jamono ji dina jeexal ñi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Sénégal yéenekaay bi duñu xamal ne bu ñu demee fi nga xam ne nag moo di Dakar gannaaw ndaw lii nga xam ne daal ci géej gi la nekkoon dënu ko fekk ko daal koy faat keneen ci Tivaouane Peulh yéene bi dañu xamal ne am na ñeneen nit ñoo xam ne nag moo di paratonnerre yi nga ak fi nga xam ne mooy banlieue bi maanaam daal taw ba ma fay def ay musiba yéen i bi dañu xamal nañu xool ndaw lii nga xam ne daal mi ngi nekkoon fi nga xam ne moo di tiwaawoon wa nga xam xamal ne ca jamono jooje laas yéen daal am na ko histoire xam ne daal ñoo doon bind bi dañu xamal ne ñoom kay la ñu nekkoon génn nañ ca waaw ngir tontu nag ci lépp ci fànn gu xam ne daal yi Badara Thiam ak ñi mu àndal kay jamono ji nag génn nañ ci li nga xam ne Ousmane Sène moom kay la muy xam ne moo di amul benn réew moo xam ne nekk na ci àdduna bi te maanaam bu ñuy bindaa histoire ñii dañ cee ànd ñii jaar gauche ñii jaar droite kon nag lii nga xam ne daal moo am ci réewum Sénégal amul lenn loo xam ne maanaam daal war naa mën a bett ñi nga xam ne nag ñoo nekkee foofe ca jamono jooje le quotidien di ñu xamal ne laas yéen kaay di ñu xamal ne étudiants yi nga xam ne nag ñoo nekkee foofe jamono ji ñi nga xam ne daal lépp loo xam ne nag jëm na ci étudiants yi nga xam ne waroon nañ leen a orienté fi nga xam ne nag moo di ci école privée yi léegi nag yéen kaay bi di ñu xamal ne ñii nga xam ne daal ñoo mujjee am bac jamono ji nag danañ leen orienté fi nga xam ne moo di école publique yi maanaam école yi nga xam ne daal ñëpp ko bokk Cheikh Omar Anne moo yëkkati kàddu yu ne mel ci Le Soleil yéene du ñu xamal ne loolee nag boo gisee ñu amal ko moo di nag état bu dafa amoon ay jafe-jafe ci lépp loo xam ne nag na ci fànn bi loolu taxoon étudiants yi ko yi ne ci Afrique bi maanaam daal eh, climat bi jamono ni mu soppee ko ci wàllu climat loolee la ko waral bokk na ci Afrique nii nga xam ne daal njur mi noonoo la fa yokkee maanaam pàcc pàcc eh, Nicolas Sarkozy di ñu xamal ne loolee daal bokk na ci ay jafe-jafe yoo xam ne nag moo andi li nga xam ne nag bu fekkee ne na lool ak li nga xam ki nga xam ne nag mooy Nicolas Sarkozy man daal Sarkozy mi bam ne Afrique dugut yi histoire laa génnoon ci moom ba suba El Hadji Ousseynou Ndiaye